alors euh, euh, Yatma. Mhm. maa ngi la ko doon junju léegi euh, bu ñu tolloo fii ci résultat c'est qu'il y a un travail qui a été fait ci travail boobu laa bëggoon nga ñëw ñu yan étape la la la la handball Sénégal ja traversé ba ñu mën a am résultat bu mel nii fi ñu toll nii. xam nga wax naa ko sànq si say waxtaan di nuyu soxna si. Euh, di di ko féliciter parce que aussi il est bon d'avoir des femmes dans les instances euh, fédérales yaakaar naa ni loolu bokk na ci jéego yi parce que c'est-à-dire euh, conscientisation bi nga xamoon ni am na mhm. au niveau du du handball parce que danaa saan handball yàgg na mhm. temps ñoom Lamine Ngom nekkoon Gorée dam jouer fii mhm. handball dem jouer Gorée final stade yéen mun leen fekkee loolu voilà mu nekk loo xam ne les gens étaient omnisports da ngay def handball di football di basket di def natation athlétisme temps yooyu noonu la woon mais par rapport à ça je me rappelle Abdoulaye Makhtar Diop quand il était ministre des sports yóbbu woon na handball bi à un certain niveau parce que il était président fédération il était président de fédération président fédération sénégalaise de handball. xam nga loolu yow. Grégoire. xam nga loolu. Euh, bon. Mm. xam nga Abdoulaye Matar bi mu nekkee euh, euh, président fédération handball dañ daan fréquent dañ daan ànd. handball bi amoon beneen am benn niveau bu mu toll woon muy xeex dans le cadre même la communication yëpp parce que lépp looy def te amul communication tamit. du feeñ handball bi dem ba ñu dem ñu organise fii championnat d'Afrique à Dakar vous vous rappelez certainement. voilà. à Iba Mar. le Sénégal a fait. Mm-hmm. Euh, une très bonne mm-hmm. participation. Mm-hmm. l'année qui suit l'année qui suit ministre bi ñëw beneen ministre ñëw daan ne euh, ku defatul résultat au plan africain de doo deux ans trois ans après mais boo mënul boo boo dul génn doo def résultat ci biti mm-hmm. il faut génn ci la àndal bi suux dem ba kenn seetaan seetaanatul handball dem ba handball bi nekk benn situation boo xam ne la chance que le handball avait ba dañu am stade muy Iba Mar muy stade mythique du handball mm-hmm. ñu koy xëccoo ak mbër yi làmb ji handball mu jigi léeg-léeg handball sax du am dañ naan bon con grand combat grand combat ñu ne handball dégagé bokk na si li gën a freiné handball mais à force de passion parce que ñii dañu passionné ah dañu am passion wu seen discipline di ci ñafe di ci ba chance bi mooy Seydou ñëw <coughs> et là Seydou it c'est un caractère yel du ko xam fam fam personnalité ba pare kilifa la ci réew mi il n'aime pas l'échec xam nga nit da am da gis nga Grégoire dans la vie il faut être positif gis nga nit bu ñëwee di wax affaire négatif sax dawal doo avancer loolu bokk na c'est un facteur bloquant Seydou dafa ñëw nag ne moom dafa bëgg comme ni nga wax sànq dafa bëgg jël alal bi yóbbu ko à un certain niveau di def nii nag mais boo koy def nii da ngay ànd ak équipe bi nekk si ginnaaw di ko pousse. Mm-hmm. muy jël xaalisam di teg gars yi di jël seen xaalis di teg ñuy sacrifier ku nekk jël nga sa xaalis di teg mais loolu mooy li ma wax léegi looy def te boole woo si xaalis surtout en matière de sport bàyyil. bàyyil c'est ça va faire autre chose. toutes les disciplines qui ont des difficultés c'est c'est un problème d'argent. xaalis la doo voyager difficilement mais yooyu yëpp Seydou daf ko régler fédération dañ ko régler dañu taxaw ni non dañuy régler problème mu déplacement yi bu ñuy déplacer dañuy yóbbu le nombre nécessaire pour l'équipe ils ont la chance d'avoir Samba Biagui dedans comme journaliste ça aussi c'est un facteur important pour le développement du handball la presse absolument il a bien il a fait une bonne non, il son rôle. de communication ouais. mais comment peux-tu être journaliste dans une fédération où tu occupes un poste ñu dem di la éducation niveau fu mu toll mi ngi yónnee information mhm. bokk na ci li tax àndal bi sori mhm. d'ailleurs ci moom lañ doon jëlee les réactions des joueurs gis nga ñépp muy man muy yow muy ku mënti doon mhm. alors loolu le président il a compris xam nga tant amul problème mu personnel crypto personnel clan yooyu te warul am sax ci sport non gis nga bu amee ci bi da war a dañ la war a dàq c'est ça quelqu'un qui crée des problèmes on doit le mettre dehors et on avance et le handball comme ni mu ko waxee sànq président dafa ne man bu fekkee damay ñëw fi ngeen di xoloog di xeex ma bàyyi ils ont compris que léegi affaire bi dëgg xaalis la discipline ba pare nag di jëli ñu nekk ci biti waaw parce que ñooñu tamit doomu réew mi la ñu alors à partir de ce moment tu as des des joueuses de haut niveau maintenant xam nga li ci des Grégoire wax na ko sànq c'est très important gis nga euh, c'est un handicap le fait d'avoir des expatriés dehors et d'avoir euh, l'équipe nationale ici nga leen di soxla kañ nga leen di jël ban moment nga leen di am naka nga leen di amee est-ce que am na entraînement boo xam ne dina am durée yooyu yëpp bokk na si liy tax parfois y a des difficultés mm-hmm. mais bu doon par exemple équipe bi dafa nekk xoolal euh, ba ñuy dajee Croatie Croatie ñooñu kenn mënu leen atableeg Sénégal Suède door na Sénégal mais difficilement. ñoom ñëpp dañu gagné Sénégal difficilement. en toute fin voilà loolu ngay xa foofu ngay xamee ne nag y a d'autres yoo xam ne c'était des facteurs bloquants. moo tax voilà. ñoom nag foofu la ñuy gagné. Mm-hmm. mais ñun ku ñu dajal en Afrique on te bo mën nga ñu gagné possible mais ku ñu dajal Afrique mm-hmm. ñoo la mën. alors.